asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen téléspectateur Mouslih TV man Seydou Diallo Medina maay fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission teggin deuxième saison émission bi nag du bàyyi dara. du bàyyi fenn du bàyyi ñenn dina waxtaanee politique dina waxtaanee religion dina waxtaanee ci wàllu santé dina wax ci wàllu économie dina wax ci wàllu fait de société émission bi nag mun ngeen ko ànd ak ñun les mercredis à 21h muy 9 ci guddi bu ngeen bëggee dégg-dégg daal kontaan naa ci yéen ba mercredi à vingt h